mbokk mi laajit ne bu ñuy miiraas ci misaal fekk ki faatu yi na fi kër ñu bëgg koo miiraas mu ne kan moo gën a yey ci jënd kër gi maanaam daal kan mu ëpp droit ci ne man maay jënd kër gi ah déet kenn kenn ëpp ci droit ci ñoom li ngay dégg ñu naan taaw bi moo ëpp àq loolu njuumte la taaw mook liir bu góor bi doo judd ñoo yem waaw maanaam bu taaw bi góor la mook liir bi doo ko judd ñoo yem ci miiraas bi kon nag yooyu ngay dégg ñu naan a ah, bu ñuy jaay taaw bi lañ war a njëkk a laaj déedéet loolu wérut ñoom ñëpp ñoo ci bokk yem bu fekkee dañuy jënd ku nekk daal man ah man kat kër gi bëgg naa bu fekkee moom dong moo ko wax bu ñuy jaay ñu jaay bu fekkee nag dana bëgg naa keneen ah man mi dana bëgg naa ko kon dañuy waxtaan ndax mbooloo bu fekkee dañoo bëgg lenn loo xam ne mënuñu su koo seddoo ndax bu fekkee kër gi yaatu na mënees na ko dagg def ko ñaari pàkk wala lu ko ëpp sédd ñu séddale leen kii jënd lii kii jënd lii wala bokk njaboot gu bokk jenn nday ñu jaay leen ko ñoom waaye rek bu fekkee nag loo xam ne kenn mënu koo xaaj kii ne bëgg naa kii ne bëgg naa ko loolu lay doon ñu waxtaan ba déggoo kenn ki bàyyee ko moroomam ka ca jënd wala buñ déggoo ñu jaay ko keneen ku bokk nag ñoom ñaar ñooñu moo xam kooku bokk na ci famille bi wala bokk ci famille bi léegi xam daa daa bëgg daa ñaar yéen ko bëgg te kër gi mënee ko koo xaaj te kenn nangu ko bàyyi bàyyi moroomam kon incha allah kër gi daal danañ ko jéem a jaay rek waaw ku ko soxla rek ñeneen su ko defee kooku jënd ko yéen ñaa ngeen bokk ci yem ku nekk ñu séddale leen seen xaalis waaye kenn gënta gënta yaay nag ci maay jënd kër gi déedéet wallahu aalamu